الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لا بد أن نعرف مفهوم الإسلام الإسلام في الأصل معناه الاستسلام لله في أمره ونهيه على لسان الوحي فمن أسلم وجهه وقلبه لله في كل أمر فهو مسلم أو الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإسلام هو الدين عند الله عز وجل قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tur yàlla di ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mooy dañu toll ci waxtu yoo xam ne ci ay bés yoo xam ne ci ay guddi dafa laajaat boroom xam-xam yi nitu diine yi ñu leeralal jaami yàlla yi jullit yi lan mooy lislaam lu tax mooy tey woote gi dafa bari mbooloo yi bari mbir yëpp jaxasoo te lu doy waar ku woote rek am ñu la wuy ji te ñuy woote ñu ngi woote ci turu diine ñiy wuy ji di wuy ji ci turu diine te woote yooyu yëpp ci islaam lañ ko aj ñooñu di wuyu yëpp seeni wuyu ji ñu ngi ko aj ci lislaam kon laaj na ñu leeralal jullit yi ba ñu xam ne am na mbooloo yoo xam ne dafa wuuteeg lislaam ku ci dund ba dee rek da ngay dem safara su nit ñi lislaam leere ci ñoom danañ fi romb woote yu bare bay wuy ji lislaam waaye bu leerul nit buy dund ci dara te li muy dund xamu ko looloo tax ay njuumte di ko ci fekk baatub lislaam mooy lan islaam ci cosaanam ca njëlbeen bu ñuy laaj lan mooy lislaam ñu ne maanaam mooy al istislaamu lillahi fi amrihi wa nahyi kii dugg ci lislaam day jébbal boppam yàlla lépp du denc dara dangay jox sa bopp yàlla ci li mu santaane nga taxaw pour def ko li mu tere nga taxaw pour bàyyi ko fi nahyihi wa fi amri loolu mooy lislaam kon yow mi ne dama bokk ci lislaam te joxagoo sa bopp yàlla lépp da nga koo xaaj wala li muy digle lenn nga ci def li muy tere bàyyiwoo ci dara est-ce que kon yaa ngi ci lislaam point d'interrogation lislaam mooy jébbalul yàlla subhaanahu wa taala ci ay ndigalam ak ay tereem ndigal yi nga def li mu tere nga bàyyi lan moo leeral loolu mu ne ala lisaanil wahyi ci làmmiñu alquran li ngay def kan moo la koy sant alquran li ngay bàyyi kan moo la koy tere alquran ala lisaanil wahyi faman aslama wajhahu wa qalbah lillah fi kulli amrin fa huwa almuslim képp ku jébbal jëmmam ak xolam ci bépp mbir nga jox ko yàlla na nga yëg ne yow yow yaay jullit fa man aslama wajhahu wa qalba ku jébbal jëmmam ak xolam ñaar yépp ay ñëw doo jox xol bi yàlla téye jëmm ji doo jox jëmm ji yàlla tee xol bi lépp ngay boole jox yàlla lii nag bu leerul ci jullit ne lépp la war a jox yàlla loolay tax yenn saa yi ñu ne ko sharia mu ne sama yoon nekku ci alquran mu ne sama yoon nekku ci yonent bi mu ne sama yoon nekku ci man diw rek ba pare te kooku ñu ne jullit la islam mooy izhaarul xudu wal qubul lima ata bihi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam l'islam mooy feeñal torox tànge toroxlu feeñal nangute ci li muhammad indi loolu mooy islam loolu moo tax ñaari baat chaque jour bu ñu xëyee ñu dégg suñu nopp waaye saxul ci sunuy xol chaque jour bu ñu xëyee dinañ dégg laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah chaque jour kenn ci ñun du xëy lu dul mu dégg ba ñaari baat yooyu waaye ba léegi ñaari baat yooyu leerul ci ñun laa ilaha illa allah mooy yàlla la ñuy jaamu muhammadan rasulullah mooy muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla loolu la ñaari baat yi di tekki yàlla rek lañ war a jaamu kan moo ñuy wan ni muy ni ñuy jaamoo yàlla ba duñ juum mu ne muhammad jeex na loolu mooy avion ñaari laaf lay am wala du naaw picc ñaari laaf lay am wala du naaw laa ilaha illallah mooy benn laaf bi muhammad rasulullah mooy ñaareelu laaf bi musu leen gis ci kaw suuf picc muy naaw ak benn laaf amul musu leen gis ci àdduna avion buy naaw ak benn laaf fokk ñaari laaf yi rek ñooy ànd mbir mi doog a naaw diine boo xam ne amul yàlla wala diine boo xam ne amul yonent loolu ban diine la loolu mbooloo moo xam ne xamuñu yàlla xamuñu yonent mbooloo yooyu yan mbooloo la lu tax parce que l'islam bi ñuy wuyoo moom la ñu xamul benn boroom xam-xam yal na ko yàlla yërëm dafa ne l'islam bi muy dugg Sénégal dafa ñëw booru timis daf ko doon wax di tooñ waa réew mi daf leen doon tooñ mu ne diina ji bi muy dugg ci réew mi dafa ñëw booru timis jant bi di waaj a sow am lu leer am lu lëndëm mu ne am ñoo xam ne ba ñu tëbee jàpp nañ ci lu leer am ñoo xam ne ba ñu tëjee ba ñu tëbee ci lu lëndëm lañ jàpp am ñoo xam ne ba ñu tëbee ci lu leer ak la lu lëndëm lañ boole jàpp jant buy waaj a sow leer ak lëndëm ñooy ànd nee na heure boobu la daf leen di koy tooñee rek pour lan daf leen bëgg a wax ne genn wàll gi ci yéen yépp ci lëndëm lañ nekk xamaguñu lislaam lan mooy lislaam mooy izhaarul xudu feeñal toroxtaange feeñal toroxlu ak nangu lépp loo xam ne yonent bi indi na ko danga kii soo koy def wala nga koy jël da nga koy jël toroxlu waaye nangu loolu moo tax alquran di ñuy wax suratul ahzab ma kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul julit bu góor warul julit bu jigéen ñu ne yàlla ak yonent nee na mu naan waaye waaye nag lii la yàlla wax mu ne waaye kooku du jullit mbokk yi lan mooy lislaam mooy diine bi yonent yépp indi woon yonent yépp benn diine lañu indi huwa diin inda allahi azza wa jal te mooy diine bi yàlla reconnaître mooy diine amul leneen diine fa yàlla du ñaar du ñett léeg-léeg nga dégg ñu ne sunu mbokk nasaraan yi wala yàlla am na diine bu tudd nasaraan wala yahud loolu wérul ci alquran ci alquran yàlla benn diine la am loolu moo tax mu ne inna diine inda allah al islam amul waxul leneen diine fa yàlla mooy lislaam leneen amu fa te diine boobu la mbooleem yonent yi indi moo tax diine boobu la wax ne wa man yabtaxi gayra al islaama diinan falan yuqbala minhu képp ku jàpp beneen diine bu dul lislaam kenn la ko nangul fa lan la wax falan yuqbala minhu bu yemoon foofu rek dina doy waaye mu ne wa huwa fi l axirati min alxaasirin te balaa ngay xam ne ci musiba nga nekk nga dee ëllëg yowmal xiyaam da ngay perte kon ku nekkul ci diine lislaam da ngay perte kon ñun war nañoo xam ci lu ñu nekk est ce que yow nekkoo ci biti naan maa ngi ci lislaam puisque lislaam du ay wax yi nekk ci mbedd mi lislaam lu yàlla indi la yonent bi jàngale naka lañ koy dundee mbooleem yonent yi moom la ñu indi islaam diinul mursalin wannabiyiina jamian min ladun aadam حتى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي بها ختم الله الرسالات وقد أكد القرآن هذا المعنى تأكيدا تاما فقد ذكر على لسان سيدنا نوح عليه السلام وقال وأمرت أن أكون من المسلمين الإسلام بقي موي دين يوننتي يب ak ñi yàlla mësa yónni ñoom ñëpp tàmbalee ci nuux ba yonent bi mujjee ñëw moo ko tëj moo ko mottali yàlla subhaanahu wa taala wax nañu ci alquran ci làmmiñu yonent yàlla nuux nuux bi mu ñëwee ñëma doon waar lan la leen wax wa umirtu an akuna min al muslimin yàlla ma jox ndigal ne naa woote waaye fan laa jëme nit ñi ci lislaam min al muslimin wa umirtu an akuna min al muslimin yàlla ma jox ndigal man nuux naa bokk ci jullit ñi min al muslimin ferul berul berul partem berul parti comme ñun tey niñ koy defee ñetti nit yu nekk rek ber parti ber mbooloo ñetti nit ñu nekk rek ber parti ber mbooloo ber kër comme niñ koy defee ndax nuux rek moo ci woote mu ne ala lisaani seydina ibrahim وإسماعيل عليهما السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ñoom ñaar keroog ba ñuy tabax kaaba gi xale baa ngi jaxase ciment bi di jox baay ji di ko jottali birig waaye Ibrahima saa yu jëree birig buy teg ñaan bi muy ñaan yàlla mooy yow yàlla yal nag ma nangul lii may def yow yàlla yal nag ma def man ak sama doom ji ñuy tabax jàkka ji ñu bokk ci jullit yi kooku moom ba mu doon teg première peeram sellal yàlla jahran loolu la ci dugal rabbana waj'alna muslimayni lak yow yàlla yal nag ñu def ay jullit gis nga dañu dugg ci lislaam ndax moom kese la mu ne moom mooy wasiyatu yaqub muy ndénkaane yaqub ci njabootam keroog ba yaquba di faatu mu dajale doom yi lan la leen doon wax xaal def leen wax ne al amwal kayfa tajmaunaha tey ab sénégalais buy faatu di faatoo ci digg njabootam yàlla jox ko alal mu dajale njaboot gi lu muy wax alal jaa ngi nii damaa bëgg nangam tool yaa ngi nii kër yaa ngi waaye xoolal yaqub waxul al amwal kayfa tajmaunaha alal ji nu ngeen koy gérer al qusuur kayfa tabnunaha sato yi nu ngeen koy continuer di tabax alhuqul kayfa tasraunaha tool yi nu ngeen koy baye waaye dafa woo doomi ba ñu ñëw mu ne leen maa taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw su ma fi jógee lan ngeen di jaamu doom yi daal di tontu tontu boo xam ne mi ngi ci sukuraat mais dafa kontaan tontu boobu tontu yi doom yi tontu ko moom yaqub moom la jël dénk ko njaboot gi yàlla mu ne wa wassa biha inna allaha astafa lakum ddin fala tamutunna illa wa antum muslimun yéen samay doom sunu borom subhanahu wa taala moo leen tànnal diine moo leen ci dugal ngallawaay bu leen dee ëllëg yowmal qiyaam dajeeg man lu dul ngeen nekk ay jullit illa wa antum muslimun ñépp yonent yépp ndax kii kese la gis nañ yusuf ci la woote ibrahima ci la woote nuux ci la woote muusa alayhi salaam ci la woote lan la wax fa alayhi tawakkaltu fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin bu fekkee gëm ngeen yàlla dëgg la ay jullit ngeen nekk leen ay jullit jàpp leen ci yàlla subhanahu wa taala nuux woote na ci ibrahima woote ci yaquba dénkaane ko muusa ngi nii ci loolu la woote yusuf ci loolu la woote lan la wax tawaffani musliman wa alxiqni bisalihin yow yàlla yal nag ma rey ma nekk jullit nga boole maag nit ñu baax kon yàlla benn diine la am muy lislaam muy aw dundin aw doxalin aw tëralin wu ñu yàlla indil yónni yonent yàlla muhammad pour mu ñëw jàngal ñu nan lañ ciy dundee léegi nag laaj bi mooy ndax nit mën na dund lislaam sans tënku ci yonent yàlla muhammad ndax nit mën na lool ndax mën nga nekk jullit sans jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad loolu mooy laaj bi kon képp koo xam ne ci ñun dafa gëm ne ci lislaam la war a dund na yëg na yonent bi moo ko war a jàngal lu muy dundee diine na yëg na yonent bi su waxee dafa war a def su teree dafa war a bàyyi loolu la jullit bi war a yëg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa nekk ci marché bi mu seen waay benn waay bu takk lam or la walla xaalis dafa xaraam bu dul or ak xaalis sax dafa xaraam yonent bi ne bërët jàpp ci loxo waa ji daa di xëcc lam bi ba loxo waa ji dereetal mu sànni lam bi ci suuf mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan bis boo waa faatu woon lam bi nekk sa loxo doo dugg aljanna yonent bi romb waa ji waa ji romb waa ji di dem nit ñi ne waa ji demal nga jël lam bi yonent bi dem na mu ne leen yonent bi du tekki sama loxo safara ma ko ci takkaat gis nga ñooñu dañ leen tere ñu bàyyi yonent bi du tekki safara sama loxo ma ko ci takkaat noonu la waa ji bàyyee lam bi dem yoonam parce que yonent yàlla muhammad moo ko tekki ñun nañ seet fan lañ toll ci imaan boobu loolu mooy lislaam mooy su yonent bi waxee asam wa taa su yonent bi tere bàyyi ndax moom moo doon jàngale diine bi mbokk yi hatta yahud yi ci tawraat subhaanahu wa taala sunu borom ba muy wàcce téere bi lan la leen wax mu ne yaxkumu biha annabiyuuna allazina aslamu téere bi ma wàcce muy tawraat moom laa sant yonent yi nga xam ne ci man lañ jébbulu nañ ko jël atte ko hatta tawraat bi muy wàcc ci islaam la wàcc hatta saharatu firawna njabarkatu firawna yi keroog ba ñu tuubee waxuñu ñoo ngi ci diine Muusa dañu ko ne ñu ngi ci diine jullit yi sunu borom subhanahu wa taala di ñu ko nettali firawna dajale na njabarkat yi ba mu yaakaaree ne mbiru Muusa njabar la gis ngeen imaan mbokk yi ngëm yàlla day changer nit ci ay seconde ci ay minute ngëm yàlla day changer nit gaa yaa ngi nii xëy nekk ay njabarkat xëy suba huit heures pile fekk na leen ñu nekk ay njabar ñu ngi jàkkaarloog firawna naan ko ndax bu ñu gañee Muusa dang ñuy fay a inna lana ajaran in kunna nahnu alghalibun ghalibin mu ne leen waaw waaw innakum la min almuqarrabin bu ngeen ko daanee rek ma def leen ay ministre ñu songoo Moussa yenu leen ba ci kaw dóor ci suuf gaa yi xam ne li Moussa indi du njabar lan lañ wax amanna bi rabbi Moussa wa Haarun ci benn minute Firawna ne leen ah da ngeen di gëm te laaju leen ma ndigal gaa ñi ne ko imaan kenn du ci laaj ndigal mbir mi mbirum diine la kenn du ci laaj ndigal lan lañ wax mu ne leen dinaa leen jàpp dinaa leen yeew ci garabu tàndarma yi dinaa dagg seen loxo ndeyjoor dinaa dagg seen tànk càmmoñ lan lañ ko tont rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin yàlla bu yeboo rek nga may ñu ñu muñ nga sotti ci sunu kaw muñ bu ñu waaji di rey mu rey ñu ci lislaam gis ngeen ñépp ci lislaam lañ nekk kon loolu mooy lislaam allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala jinabi الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وحتى حواري سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحتى في ملكة الصبا قد آمنت وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين bu njàngee histoire Qur'an danañ fekk ndaw soo si nekkoon buuru Saba keroog ba muy tuub ci lan la wax lay dugg Suleymaan da ko ne wa aslamtu maa ngi nii di jéggulu di nekk jullit ma as Suleymaan ànd ak Suleymaan waxul Suleymaan aslamtu laki nafsi jébbal naa la sama bopp waxul loolu dafa ne ko maa ngi jébbalu ànd ak yow ñu jëm ci yàlla aslamtu maa suleyman lillah kon kuy jébbalu ci yàlla ngay jébbalu suñu jàngee ñi doon jàppale isa alayhi salaam ñooñu ba ñuy dugg ci diine lañ lañ wax amanna billah washad bi annana muslimun yow yàlla ñu ngi lay seedeloo ne ñun gëm nañ la te na nga seede yow yàlla ne ñun ci julli ñi lañ bokk kon ban diine moo fi nekk bu dul lislaam amul benn diine ci kaw suuf kon bu dul lislaam isan ibadallah wa yufhamu mimma zukira kon dinañ wax war nañu comprendre bu baax ci li ñu doon wax léegi anna al islaama aqida tatamassalu bi sahadatayni wa arkaani l iman l'islam avant tout pas pas la bu nit di fas ci xolam gëm ko ngëm ngëm la bu nit di gëm kon boo gëmul xamal ne amagoo pas-pas bi moom islam boobu dafa nekk ay ponk ay keno ñoo ko yenu du léppam déedéet ay keno la mu nekk juróomi ponk waaye al islam ibada tatamassalu bi salaa wa zaka wa sawm wal hajj ñetteel bi mooy lislaam jaamu yàlla la boo xam ne li ko ëmb mooy julli joxe azaka aj màkka woor weeru koor wa hadihi l arkaan al islaam mu ne yii ñooy ponki lislaam beneen bi mooy islaam yaqumu fawqa hadihi l arkaan yatamassalu bi mafahimi l xayaa fi l islaam ki bëgg a dund diine ji dëgg foog mu comprendre islaam dëgg-dëgg lan la ñu bari ci ñun jàpp na ne lislaam mooy julli mooy woor ibaadaat kese la amul leneen soo jullee woor rek buñ la ne yow ci loo ne nga ni ci lislaam jeex na fekk xam ngeen ne ba yàlla di lim mbirum julli mbirum pas-pas ci suratul baqara aaya lay sa mbir boo jàngee aaya bi ba mu yàgg di nga gis julli nu mu mujjee ci ginnaaw hatta lislaam bi ngay wootewu bu fekkente ne du dëgg julli gi du mën a baax loolu moo tax gis ngeen julli yi loolu moo tax gis ngeen jaamu yàlla yi lan moo tax mënul sell mooy lislaam la ñu comprendre ñun waa Sénégal te yàlla ba mu ñuy wax nañ dugg dane udxulu fi silmi kaffa dugg leen ci diina ji lépp kaffa la wax kaffa ñaari baat la yàlla boole dafa ne udxulu dugg leen loolu rek doyoon na waaye mu ne kaffa na lépp dugg lan la tëje aaya bi mu ne wala tattabiu xutuwati shaytaan bu leen topp yoonu seytaane yi kon dafa jaadu tey kenn ku nekk ci ñun ñu delluwaat càmbaraat jàngaat leerluwaat lan mooy lislaam ba ñu xam suñu dund fan lañ koy teg ba ñu xam suñuy jaamu yàlla nan la ñuy jaamoo yàlla ba ñu xam kan mooy woote ñu wuy ji kan mooy wax ñu jëfe kan mooy tere ñu bàyyi waaye ku jóg rek takk say sabar ku jóg rek takk say rajo ku jóg rek commencé woote nga gis ay téeméeri téeméeri façon jullit ci àddina bi ay millions yi millions yi façon jullit te ñépp nee nañ benn te yonent yàlla muhammad bi ko yàlla yónnee ba keroog sahaaba bi ko mujjee remplacé nga xam ne nguurug lislaam ca la tase lislaam benn bopp kese la woon benn kese tey ñu am téeméeri lislaam kenn xamul mbir mi lu muy nuru pëccëxoo foo caaxaan pecc naan sàngara naan woo lu nekk ci biir diina ji loo wax rek ba bokk na ci diina ji léeg-léeg sàngari nga dégg ñu ne na xumb te dagan na xumb te dagan waaw nañu fecc def lu ñu neex loolu du diine maadaama xam nañ ne bi ñuy julli si jumaa kenn joxuñu convocation ne wuyu ji leen da ngaa dégg allahu akbar nga xam ne gëm nga yàlla amoo droit julli sa kër noonu nga war a xamee ne nii nga wuyu see yàlla nii nga war a wuyoo yàlla lépp ci lépp ci lépp ci lépp lu mu mën a doon guddi la bëccëg la dafa sedd dafa tàng dafa neex dafa naqari nii ngay lemee sa bànneexu bakkan yëpp topp li yonent yàlla muhammad indi loolu moo tax mu ne wallahi laa yumin wallahi laa yumin laa yumin ahadakum hatta yakunu hawaahu tabaan lima jitu bihi kenn ku nekk ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul dafa lem ay bànneexi bakkanam topp man muhammad li ma indi allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maradan jamila allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizyi dunya wa azabi alaxira اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله